Touba Khayra. seen menuiserie tapisserie Touba Khayra seen jaaxle jeex na jëm ci wàllub jënd ak jaay ay meubles. ay salon ay chambre à coucher ay fauteuil ay coussin pour auto yanji ba yegg ci lool sax yamu na ca soo bëggee yee salaat wala defar sa salon dawal gaaw seeti menuiserie tapisserie Touba Khayra. Touba Khayra. am na itam Touba Xayra tissu xeetu tissu yépp la ñuy jaay ay brodé bazin voile wax filafil jesner bazin brodé yéen ñi bëgg a sañse fël-fëlaale ba fu ngeen romb ñépp geexsu leen daw leen gaaw seeti ñu mën ngeen ñoo fekk Kër Massar wala tournoi Serigne Assane ca Géejawaay mën ngeen ñoo woo itam ci 77 713 94 57 77 713 94 57 wala 76 4 490 72 12 76 490 72 12. nuyu naa la. waaw fay naa la Makan Ndiaye fay naa la bu ba a baax. tey bu Ndaw Zarko noo ko gisee. waaw combat bu neex ñu bëre ci fulla ak fayda bëre bu neex muy lamb joo xamante ne lamb ju neex la mais sama xol neexul ci combat bi tey la ma wax sànq impre laay waxaat fii léegi léegi dama ne Niang bu Ndaw ragal moo tax mu ñàkk combat bi tey waaw ragal laa gis. ma nga dafa ragal man amul problème bi parce que Makan man je un technicien man xam naa làmb bu baax xam naa mbër mu mbër li mu war a def ak def ñaa bu ndaw combat bi xaw ma ñan ñoo ko mais Zarko warut songu ñaa bu ndaw ñaa war ma waroon songu Zarko beneen bi njool bu mot 1 mètre 80 ndaamul tonne Zarko warut dugg sa gàdd def perche ay 2 coups 3 coups loolu c'est erreur c'est fautif coach yu ko yor boxe coach yu ko yor ci xeex njool la bu bu ñàmb na bu ràccee fermé bu fermé bu ubbi ku euh, taalal loxoom dox sa kaw fu Zarko taxaw dafa war a fekk kurpeñ loxo bi mu aj ñii loxo droite am bii xam nga loxo gauche bi waru loxo bi maanaam pan pan waru arrêté saa bu loxo bi Zarko saa bu mébee war war a fay fekk arrêt euh, euh, gauche. saa bu ko Zarko nee tëf moom daa war a ne tëf tëf. loolu moo nekkoon yoon. macha allah. mais Zarko warul cadre Niang bu Ndaw ci làng Niang bu Ndaw moo waroon cadre Zarko ci làng gi Zarko wut fu jaar Niang bu Ndaw dafa euh, entraîné am doole Niang bu Ndaw dafa mën a bëre damay bañ nit ñi ne mënul a bëre. daa mën bëre pire. dama koo seetaan mbapat seetaan ko ci arène bi. mais mais mais dafa mën a bëre mais ñenn ñi nee naan Niang bu Ndaw. Mhm. dafa xaw a euh, ragal Zarko. waaw ra man man mii loolu laa gis ah. man ragal laa gis tey wax dëgg yàlla man abu ragal laa man Niang bu Ndaw suma xarit la. waaw euh, suma nit la sama xarit la mais télé meer gagné ci combat bi. man benn mbër laa muy soq. ku bi bëre yàlla la soq daan. loolu ragaluma lool mais que si télé meer gañ ñaar bu ñun ñoo ko yar. ñoo bokk bokk moom géej waaye bokk moom lu ne yéen nañ ko lu ne ci àdduna. parce que euh, Zarko mu daan ñaar bu ndaw loolu c'est euh, c'est honto waxoon naa ko waa géej waaye boo xoolee ba Zarko daan seen booy bi seen relève bi loolu dina garaaw xale bi la yaakaaru làmb la woon mais yoonam ba léegi daggut. mais am lu mu changé tuuti. mooy lan. na defaraat xel mi defaraat entourage bi te xam ne géejuwaay la dëkk. waaw Niang Bou Ndaw na xam ne la dëkk. mais mais dañ koo gis moom Niang Bou Ndaw mu demoon voyage Maroc ñëw. Euh, ci diggante bi Niang Bou Ndaw changé ci. mel ni lu lu wàññi poids. mais tey combat bi ñu bëri di seetlu ci ni Zarko da koo ëpp doole est-ce que wàññi poids bi mu wàññi poids tam nekkul woon erreur ci combat bi. wàññi poids bi man maa njëkk a kaas man leen euh, Ndaw xaw ma dafa contact ba 11 xaw ma mais waroon naa 10 tuuti. parce que euh, moom ñaambara dafa a bëri a bëri gis daa parce que xale la am na doole bu ñëwee day imposé doole daan la dem ñibbi mais boo si ndox ci bëre ba leen dafa mën a ba ci biir combat bi ji nga boo xamoo ñaambara ba ko mu ngi ci kaw mooy waral li ma la waxoon la la defut ñaa bu ndaw aw Zarko amutoon warutoon am accès un mètre centimètre mu jege ñaa bu ñaa bu ndaw saa bu yëkkatee day dal mais nag wét na ci combat mu wax ko mu koo wax. wét ah, dafa wét ci combat bi. man côté gi dañ ko séddaan. géejawaay dañ koo séddaan ci côté autorité yi. côté kenn ñëwut. ana la dëgg da nga fay gis. la dëgg de. la da nga fay gis. la voyage. ah la la voyage. est-ce que war na voyage muy muy papa yi ñaaw bu ndaw xale bi préparé xale bi. Euh. ci ay lamb lañu waxoon day ñëwaat de tuuma yañ dem bañ. Euh. na ñaaw bu ndaw la dëgg dafa am combat ak Siteu mu dem dem Maroc. Euh. kon tey ñaaw bu ndaw amee combat ak ki nga xamante ne mooy Zarko. gisuñu la de guerre tuuma ba day ñëwaat. ay wax neexut. te ci te ci communication euh, Zarko saa ñu ko déggee mu ne booy bi dama ko jël mais taxumaa jóg su ma jógee ci moom seefam laa jëli muy la de guerre. mais jëlaat na beneen xale jën kay de. bébé jën <laughs> bébé jën jëlee na bébé jën. jamay jamay abu loolu tam est-ce que combat xam na ko. jama ko dëgg jama ko dëgg dañ si ànd liggéey ak moom sax moom. moom nit ku baax la lu mu dugg dañ ciy dugg. Mhm. waaw parce que moom sonal presse bi. saa ba lu ñëwee mu acquitté ñëpp ñu dugg mais li waa làmb di wax mënoo dugg ci écurie Soumbédioune fekk fa Diène Kaïré mu supérieur mu waaw xam ma kat ay wax lay wër <laughs> seytaane la léegi nga wax ci waa géej waaye seetaan bi ngeen a seetaan xam nga man fa laa dëkk nag waaw nit mais seetaan nañ booy bi autorité yi nga wax waaw autorité saa nañ booy bi waaw seetaan nañ booy bi mbëri na la dëgër non su may su ma ne yeneen mbëri damay tooñ waa écurie am laay wax ñëpp ñoo nañ ci sama la dëgër ana la dund dafa sonn ci xale yi. dund. nga sax ci combat bi. dund euh, euh, mu tuddati coach. ñuy waa amuñu ko. ah. waruñu war ana Baye Ma Ndiaye. mu woon ca na mbër la dafa war wàcc. mais est-ce que convoqué ko la war a wàcc ñu bëgg na wàcc Baye Ma Ndiaye kenn ko fi ana xale yi ana Thiat Daouda Fall ana Youssou Ndour ana Gakou 2 buñ ma wax loo waay. abu wax na de. njool la bu bu ñàmb na bu ràccee fermé bu fermé bu ubbi ku euh, taalal loxoom dox sa kaw fu sar ko taxaw dafa war a fekk ak kurpeñ loxo bi mu aj ñii loxo droite am bii xam nga loxo gauche bi waru loxo bi maanaam pan pan waru arrêté saa bu xàccee loxo bi. Zarko saa bu mébee war war a fay fekk euh, euh, à gauche. saa bu ko Zarko nee tëf moom daa war a ne tëf tëf. loolu moo nekkoon yoon. macha allah mais Zarko warul cadre Niang bu Ndaw ci làng. Niang bu Ndaw moo waroon cadre Zarko ci làng gi. Zarko wut fu mu jaar. Niang bu Ndaw euh, dafa entraîné am doole. Niang bu Ndaw dafa mën a bëree. ñi ne mënul bëre dafa mën a bëre. daa mën bëre pire. dama koo seetaan mbapat seetaan ko ci arène bi. mais mais mais dafa mën a bëre mais ñenn ñi ne naan Niang bu Ndaw. Mhm. dafa xaw a ragal Zarko waaw ra man man mii loolu laa gis ah man ragal laa gis tey wax dëgg yàlla man abu ragal laa man ñaa bu ndaw suma xarit la. waaw euh, suma nit la sama xarit la mais télé meer gañ ci combat bi. man benn mbër laa muy soq. ku bi bëre yàlla la soq daan. loolu ma lool uh-huh. mais que si télé meer gañ. Uh-huh. ñaa bu ndaw ñun ñoo ko yar. Uh-huh. ñoo bokk bokk moom géej waaye bokk moom lu ne yéen nañ ko lu ne ci àdduna. parce que euh, Zarko mu daan ñaa bu ndaw loolu c'est euh, c'est honto waxoon naa waa waa Guédiawaye boo leen xoolee ba Sarko daan seen booy bi seen relève bii loolu dina garaaw xale bi la yaakaaru làmb woon mais yoonam ba léegi daggut mais na am lu mu changé tuuti. mooy lan na defaraat xel mi defaraat entourage bi te xam ne Guédiawaye la dëkk. waaw ñaabu ndaw na xam ne Guédiawaye la dëkk. mais mais dañ koo gis moom ñaabu ndaw mu demoon voyage Maroc ñëw euh, ci diggante bi ñaabu ndaw changé ci mel ni lu lu wàññi poids mais tey combat bi ñu bëri di seetlu ci ni Zarko. da koo ëpp doole est-ce que wàññi poids bi mu wàññi poids tam nekkul woon erreur ci combat bi. Euh, wàññi poids bi man maa xam njëkk a kaas man leen euh, Niang bu Ndaw xaw ma dafa contact ba os xaw ma mais waroon naa diis tuuti parce que euh, moom Niang bu Ndaw dafa mën a bëri de ñaar est-ce que am na Niang bu Ndaw dafa mën a. gis muy daa parce que xale la am na doole bu bu ñëwee day imposé doole daan la dem ñibbi mais boo si ndox tu bëre ba leen wuuree dafa mën a bëre ba ci biir combat bi ji nga boo xam nga Niang bu Ndaw ba ko sal alaama combat sal ko mu ngi ci kaw mooy waral li ma la waxoon la la defut ñaa bu ndaw aw Zarko amutoon warutoon am accès un mètre centimètre mu jege ñaa bu ndaw ñaa bu ndaw saa bu yëkkatee loxoom day dal mais nag wét na ci combat bi mu wax ko bañ koo wax a ah, dafa wét ci combat bi gi dañ koo seetaan géejawaay dañ koo seetaan ci côté autorité côté autorité kenn ñëwut ana la da nga fay gis la da nga fay gis la voyage ah la da la voyage est-ce que war na voyage yi muy muy papa yi ñaa bu ndaw xale bi préparé xale bi ci ay lamb ah la ñu waxoon day ñëwaat de tuuma yañ dem bañ na ñaa bu ndaw la dëgg dafa am combat ak Siteu dem dem Maroc mhm. kon tey ñaa bu amee combat ak ki nga xamante ne mooy Zarko gisuñu mhm. la de guerre tuuma ba day ñëwaat mhm. ay wax neexut te ci te ci communication euh, Zarko saa bu ñu ko déggee mu ne booy bi dama ko jël mais maa jóg su ma jógee ci moom seefam laa jëli muy la de guerre mais jëlaat na beneen xale jën kay de bébé jën <laughs> bébé jëlee na bébé jën jamay jamay loolu tam est-ce que combat la waaw combat jamay kee ngi ni ndaanaan la lu mu def xam na ko dama ko tëgg dama ko tëgg dañ si ànd liggéey ak moom sax moom moom nit ku baax la lu mu dugg dañ ciy dugg mm-hmm. waaw parce que moom sel mooy lu sonal presse bi saa boo ñëwee mu acquitté ñëpp ñu dugg mais mais li waa làmb di wax mënoo mm-hmm. dugg ci écurie Soumbédioune fekk fa Diène Kaïré mu supérieur mu waaw xam nga man kat ay wax lay wër <laughs> seytaane la léegi nga wax ci waa géej waaye seetaan bi ngeen a seetaan man xam nga man fa laa dëkk nag waaw nit du yàq dëkkam mais seetaan nañ booy bi. autorité nga wax. waaw autorité seetaan nañ booy bi. waaw seetaan nañ booy bi. mbëri kay tudd su may su ma nee yeneen mbëri damay tooñ. waa Ikrim laay wax ñëpp ñoo nañ ci sama la de guerre la de guerre dafa sonn ci xale yi. dund. nga sax ci combat bi. dund Alioune euh, euh, waa amuñu seen. gisuma ko waruñu waruñu ana Baye Mandiaye. mu woon ca kaw. lan bokk na ci convocation bi. mais Baye la ndax dafa war wàcc. mais est-ce que ko tam. même buñ ne convoqué la war a wàcc ñu bëgg na wàcc Baye Mandiaye du wàcc kenn ko fi téye ana xale yi ana Thierno Daouda Fall ana Youssou Ndour ana Gakou Dóor buñ ma wax loo waay. <laughs> abu wax na de.